Boubacar Seye maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba maa ngi lay fay. Boubacar Seye nga jiite Horizon Sans Frontières déjà ñu lay laaj euh, naka nga gisee élection législative yi nga xam ni waral nañ ko amal fële ca France ci euh, dimanche 30 juin bile ak euh, dimanche 7 juillet pour deuxième tour bi naka nga gisee élection yi parce que dañu gis ni dafa am benn montée en puissance bu RN bu Bardella. waaw xam montée ak doole bi extrême droite am en France tey du dara lu dul li ko indi mooy c'est l'échec des partis politiques traditionnels parce que ñoom dañoo dem ba nga xam ni nekkatuñu en phase avec les populations euh, l'offre politique n'a n'a pas été renouvelée amul offre politique maintenant cette absence d'être d'offre politique moom moo indi euh, le populisme le populisme mooy une crise de confiance aiguë bi am Euh, ci population bi envers ses hommes politiques et ses institutions loolu mu indi benn genre euh, repli identitaire du peuple qui n'a plus confiance qui a peur situation boobu tey mu indi le fait que migration dafa dem ba dëkk bu mel ni France mu nekk euh, un débat civilisationnel une question identitaire une marchandise électorale pour gagner des élections boo xoolee programme yëpp c'est basé sur l'immigration ban immigration c'est l'immigration extra-européenne moo ñun nit ku ñuul ñi ban immigration c'est l'islam parce que ñoom dañu dem ba euh, l'Europe en général la France en particulier dañu dem ba ragal d'être détrôné socialement et culturellement par l'islam comme amul offre politique nag loolu moo indi situation bi loolu moo may doole parti yu mel ni Front National parce que dañoo ñëw lépp teg ko ci gan teg ko ci islaam l'islam kat il y a eu des amalgames islam violence la euh, l'islam terrorisme la nit ku ñuul lii la ñu indil lii la ñu indil donc ñoom loolu moo seen programme mais puisque les partis traditionnels n'ont pas renouvelé leur offre politique mu jur situation bi nga xam ni dama wax ni gàcce la pour la France parce que quand même la France mooy le pays de la déclaration universelle des droits de l'homme maintenant la pays n'est que le pays de cette déclaration mais dans la pratique c'est autre chose moo tax gisoo ñoom ñëpp ñu jóg tey am lu leen metti ñëpp jóg pour un sursaut national pour barrer la route euh, au Front National ben j'espère que ça va marcher situation bi am nii ñoom ñoo ko parce que mënoon na ñàkk boo xoolee le statut sociale de la France boo xam ni dëkk boo xam ni tey ñeenti France yoo jël kenn ci maamam gan la kon lu mel nii mënoon na faa ñàkk Euh, kon tey jii bu fekkente ni euh, rassemblement national gagné nañ élection yi euh, ban conséquence lay am si immigré yi africain yi voilà. waaw xam nga conséquence yi moom dina bëri parce que tey la France bascule entièrement vers l'extrême droite tey racisme bi dina yokk xénophobie bi dina yokk loolu dina gën yaatal. la fracture sociale. Et il faut aller même vers d'autres tensions sociales, vers aussi une marginalisation des Noirs et des musulmans, des gën a yokk loolu ci question boobu la ñu jëm loolu ça serait regrettable dans une France boo xam ni c'est une terre d'immigration tey France dafa waroon joxe exemple hein d'une meilleure intégration en Europe mais tey France moo jël ndaare boo xoolee euh, euh, euh, dans les élections européennes là mais y' a France rek moo tax sa assemblée nationale yeneen dëkk yëpp fexe nañ ba extrême droite même su dee sax jëlu fa jëlu fa premier en Espagne jëlu fa premier yeneen dëkk yi jëlu fa premier à part l'Italie donc tey ñoom li am ni ñoom ñoo ko teg seen dëkk te bu ñu deful ndànk suñu baarewul la route à l' extrême droite le dimanche mais suñu deful ndànk euh, ñoom dinañu yàq seen dëkk d'ailleurs même Macron gis nga il a utilisé le mot <laughs> guerre civile. Mhm. donc tey lii xew France ëllëg kenn xamu ko yàlla rek moo xam. moo tax nag maa ngi ñaan maa ngi ñaax aussi euh, di demander euh, au peuple français euh, un sursaut national contre l'extrême droite parce que lii xeeñ ëllëg baaxul. Euh, aussi droit du sol bi ñu éliminé en, en France euh, aussi mbir moom noo ko gisee. waaw xam nga ñoom xamuñu parce que parce que droit du sol <laughs> jóge ci ku mel ni Jordan Bardella nga xam ni lii mooy erreur France la France a créé des gens comme Jordan Bardella parce que koo xam ni yow gan nga yow tey si tu oses parler au nom de la France c'est grâce à l'intégration des peuples européens kon kooku taxaw taan naan damay dindi droit du sol suñu dindi woon droit du sol moom du taxaw fi tey di wax xam nga koo xamul sax l'histoire de la France mm. et malheureusement voilà le danger qui nous qui nous guette en Europe des dirigeants yoo xam ni xamuñu sax l'histoire de de de l'Union européenne xamuñu l'histoire de leur pays gis nga moom euh, il est d'origine italienne rax tamit ab naar kooku kooku war naa taxaw naan tey damay supprimer droit du sol donc vous voyez fii la ñu toll tey en Europe mais là c' est l'histoire des dirigeants c' est l'erreur des dirigeants gis nga euh, Ursula von der Leyen dafa taxawoon ñaari at yi ci ginnaaw en parlant d' immigration mu ne c' est défendre un mode de vie européen kenn taxawul wax man maa fi nekkoon di wax lan mooy un mode de vie européen alors que tey on devrait parler de l'Europe de la diversité mais comme dañoo échoué dans les politiques d' intégration culturelle et structurelle moo jur lii tey fu intégration amul nag moo yaatal bi ñu war a yaatal gan ñi dans une démarche constructive tënk ko ci respect et la tolérance mutuelle lii lay jur tey parce que le fond le grand problème de l'Europe c'est l'islam c'est l'immigration extra euh, euh, muy nit ñi ñuul ñi parce que l'Europe a tout simplement peur d'être détrônée culturellement et socialement par l'islam mais loolu mënuñu ci dara loolu mënuñu ko mënuñu ko arrêter mënuñu ko arrêter moo tax li leen ciy sauver ñu renforcer les politiques d'intégration tey islam boobu ñuy xeex hein boo demee en France plus de quatre millions de Français dugg nañ ci diine l'islam wala ëpp nañ ëpp nañ ko sax euh, d'après les chiffres de la Croix loolu kenn mënul téye loolu kon nañu fexe tëggaat seen politique migratoire xoolaat leur politique d'intégration pour une meilleure cohésion sociale loolu nag mooy échec bi en France lii c'est l'échec tout simplement des politiques d'intégration mhm. ñu jógee France ñëw fii ci Sénégal naka nga euh, gisee politique migratoire bi nga xam ne nguur gu bees gi teg na ko ak aussi visite bi nga xam ni ministre des affaires étrangères de l'Union européenne amal na ko fii à Dakar waaw xam nga man euh, dama bokk ci ñu njëkk taxaw ni dañu bëgg changement Sénégal parce que dëkk bi ni mu doon doxee baaxul surtout au chapitre des migrations internationales dem naa ba sax ba voté ba ba ba demander un vote utile d'ailleurs sax maa ko njëkk a bind fii autour de la candidature Diomaye Sonko kon ñii suma sañoon ñoom dañuy réussir seen mission mais schéma bi ñu teg moo baaxul parce que kenn du reproduire un schéma boo xam ni dafa échoué kenn du reproduire un schéma qui a fait plus de mille morts et des disparus en Méditerranée c'est quoi un Sénégalais de l'extérieur foofu loolu mooy erreur bi te pourtant avant ñoom ñuy samp seen gouvernement waxoon naa leen mettez vu contexte bi ñu nekk tey le Sénégal dafay dugg dans une nouvelle ère avec la découverte des loolu dafay am dumping migratoire nit ñi dañuy ñëw dafa laaj une véritable politique migratoire ma ni leen mettez un ministère plein chargé des migrations internationales loolu dafay permettre ñu jël le dossier là saytu ko dans sa diversité sa complexité et sa transversalité parce que les causes sont multisectorielles gis nga sax l'arrivée des pêcheurs ak yeneen ak yeneen mais malheureusement du schéma boobu la ñu tegoon maa ngi leen di ñaan ñu rectifier avec une agence autonome loolu daf ñuy permettre rek yokkute sax lay nekk pour Sénégal parce que tey ci contexte bi lañ nekk. Hmm. schéma boobu la ñu teg schéma boobu nag baaxul boo xoolee fan yële rek l'histoire nous donne raison il y a des dans le désert. ñooñu foo leen di dëkkale ak lan mooy sénégalais de l'extérieur loolu schéma gouvernement yi fi nekkoon dañ ko tegoon pour faire de la diaspora un grenier politique loolu ça ne marche plus il faut changer il faut il faut une rupture dans la gestion de ce dossier il faut un changement de logiciel man loolu laa doon xaar malheureusement nag du loolu la ñu teg ah man nag maa ngi leen di conseiller ñu xoolaat dossier bi euh, teg ba beneen schéma pour que ñu mën a évoluer maintenant bi. Euh, mais ñu def attention parce que gis na un accord avec l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine euh, dama wax ni Sénégal na def nànk c'est le conseil que je donne encore pour bañ a dugg dans le piège de l'Union européenne parce que l'Union européenne par le Frontex dafa bëgg a militariser la Méditerranée depuis l'avènement de Hans Leystein Hans Leystein moo dirigé tey Frontex après la démission de Francis Légerie bi nga xam ni tey mu ngi ci liste Front National moo tax ay plainte rek ko topp tey Hans Leystein moom c'est un cadre de l'armée néerlandaise moom nee na day militariser moom dafa bëgg créer beneen armée européenne ci Méditerranée bi uniquement pour toroxal wala wala pour sànq immigré yi les candidats à l'immigration clandestine moo tax nee na d'ici deux mille vingt sept mu ngi prévoir plus de dix mille gardes-côtes ñu yore. pour firnaal loolu gis nga en mars deux mille vingt dafa ubbi benn dafa lancé benn appel d'offre boo xam ni appel d'offre bi sax mu ngi jeex le dix huit avril deux mille vingt deux d'un montant de deux cent mille euros pour commander ay paaka ay paaka yu am laam ay gourdin mais dama lay laaj pour résoudre une crise migratoire lu fi indi ay paaka ak ay gourdin on ne peut pas régler une crise migratoire par des armes ni par la répression loolu moo tax le journaliste Monroe Mathias Monroe en deux mille vingt et un mu bindoon ci page ci ay firnde yu leer le Frontex dafa commandé deux mille cinq cent armes automatiques des pistolets automatiques auprès d'une entreprise autrichienne ci benn durée de quatre ans renouvelable de montant de trois virgule soixante seize millions d'euros waaw loolu loolu lu fi indi lu fi indi lu fi indi ay armes kon suñu deful nang ñu ngi ci schéma boo xam ni puisque l'Europe a échoué parce que l'Europe s'érige en barricade l'Europe bëggatul l'immigration extra-européenne comme ni ma ko waxee sànq l'islam et la migration gis nga tey c'est toute l'extrême droite qui dirige l'Europe a adopté le, le pacte sur l'immigration et le droit d'asile yeneen tension leen indiwaat dinañ bundu xatal nit ñu ñuul ñi génne leen ko ñi am këyit sax ils vont créer les conditions de leur irrégularité pour dàq leen léegi nag li ci des puisqu'ils ont échoué fexe nañ ñu nekk jënd ay armes armes yooyu nag dañ koy far jox dëkk yi nga xam ne ñoom la Frontex signé accord de siège euh, armée ay africain pour ñu tirer ci ay africain wala pour ñu toroxal leen war a ñu sànq leen ci ndox mi loolu erreur bu mag la Sénégal euh, moo tax ma daanan baax nag ñuy waxtaan ci dossier bi balaa ñuy def erreur euh, accord bi ñu signé loolu erreur la te piège la te suñu defoon lànk rek dina fi indi ay njaaxum te vraiment euh, njaaxum yi doy na erreur yi bëri na man dama jàpp ni nous au Sénégal ñu devons nous abonner aux obligations de résultat ba tax na euh, l'état bi fi nekk tey régime bu bees bu fi nekk nañu xoolaat seen doxalin au chapitre des migrations internationales sinon suñu defoon nank rek dina nekk une situation regrettable te ñi fi nekkoon noonu lañ doon doxee te man bugguma loolu mu amaat fi. Mmh. dernière question Boubacar Seye ñu gis la aussi yaa ngi wax ni euh, faw ñu juger ex-président France euh, sénégalais bi di Macky lan moo waral nga laaj lu ni mel si tënk. waaw xam nga juger Macky Sall. Euh, dire non à l'impunité des crimes politiques économiques de Macky Sall dama jàpp ni euh, c'est c'est c'est dafa dafa am dafa am solo. pour une justice équitable dama jàpp ni dafa bokk sax ci lii defaraat Sénégal les enjeux sont sécuritaires xam nga tey Macky Sall il dandine à travers le monde fu nekk mu taxawal il faut parler avec les secrets d'État du Sénégal Macron di ko utiliser bay sax ñaawal Sénégal ba naan jox na ko liggéey mais lan la Sénégal joxul Macky Sall lu ko Macron mën a jox tey di ko yónni un grand pays comme le Sénégal président bi pare ni day dem di liggéeyal Macron kon dama jàpp ni tey euh, ne serait-ce que pour ñu tabaxaat dëkk bi Macky Sall dafa war a ñëw parce que Macky Sall durant tout son magistère hein moom dafa de par ses actes dafa franchir tous les rubicons allant des finances publiques hein ba ci plan économique et social dëkk bi yëpp ay scandale la ñaata nit lañ fi rey ñaata nit ñoo fi perte seen bakkan ñaata nit la fa Macky Sall complot tëj leen prison ñaata nit tey ñooy ñooy faj des maladies à vie man mii ci la bokk ñaata nit ñoo am ay ñii ñii ñii seen cër yi joxatul euh, boo dégloo les témoignages des familles alors sa àddina dafay tukki loolu moo tax man ma ni tey pour ñu defaraat dëkk bi ba nga xam ni li fi amoon dootu fi amati parce que nous en Afrique euh, boo xoolee Sénégal régime yi fi jaar yëpp amul kenn ku dem daf le bilan. loolu moo indi lii tey la reddition des comptes est nécessaire pour que tey justice sociale soit faite li am tey li am Sénégal tey c'est inédit c'est une situation inédite musu tey tey boo euh, euh, euh, scandale yi fi am yëpp bu ñu ubbee information judiciaire les morts là di nga waar si yàlla loolu nag je crois que ça ne peut pas rester impuni loolu moo tax ñu ne non à l'impunité di wax l'état du Sénégal mu mu mu Euh, un mandat d'arrêt international, euh, entamer la procédure de son extradition au Sénégal pour que justice soit faite parce que nag lii du lu ñuy bàyyi mu jàll te ñu koo bàyyi mu jàll day nekk lu jaadu Macky ñëw loolu moo tax nous avons lancé une pétition boo xam ni pratiquement au Sénégal on n'a pas les cultures de la pétition ñu ngi ci pratiquement quatorze mille cinq cent loolu suñ ko doon dafa remplir nañu euh, le grand théâtre ñaata yoon plus de huit fois neuf fois alors nit ñi sax dañuy woo ba dañu bëgg a signé xamuñu nu ñuy signé ba dañoo mujjaa daf beneen pétition boo xam ne dañ ko imprimer ku ko jël da nga koy imprimer signé loo ñu ngay signé delloo ñu ko donc fii la ñu toll tey les gens ont c'est développement social Macky Sall euh, le crime c'est c'est c'est répandu dans tout le pays le sang s'est versé mais loolu ça ne peut pas rester moo tax ñuy wax loi d'amnistie mais une loi d'amnistie mënul fomp fu dara tuur et puis a je crois que lii aussi c'est pour les générations futures et les pouvoirs futurs plus jamais saaw au Sénégal lañ wax lii waratu fi am ñu fal la Sénégal yi yaakaar la teg la fi pour nga liggéey réew mi nga ànd ak ña nga àndal di reyaate di toroxalaate di takkal sénégalais ay chaîne di dóor ay bal foog ni yow yaay yàlla di def lu la neex mais loolu dootu fi am kon combat bi nii la demee alors euh, man de bu ñëpp demoon bàyyi ma sax du tax ma bàyyi ko alors Macky moom il faut ñu layoo ak moom. il faut que mu wax ñu euh, pourquoi tout la loolu moom ci lan lañ nekk lii loolu lañ nekk te du ñu bàyyi donc lii rek la ma ci woo Sénégal yëpp alors ñu jàppale ñu ci dooleel ñu ci pour que justice soit faite combat bi nag commencé na xamuñu fu mu yem et on est conscient que ça sera un combat qui ne sera pas facile ça sera un combat de de de longue haleine mais dañuy jàpp rek bañ a bàyyi parce que lii nag mooy avenir u Sénégal ba lii dootu fi amati. lii rek lañ ci jublu lii moo tax ñu ci woo ñëpp lii moo tax l'état du Sénégal mu war ñu cee ñoom njëkk jàppale ñoo ci war a njëkk a dugal seen loxo je rappelle que ça fait deux semaines on a écrit une lettre au président de la République ou au premier ministre on a écrit une lettre quelques ambassades yi fi nekk ñu ngi déglu nag parce que ñoo ñu du ñu recevoir tant que état bi recevoir ñu waxtaan ci ak ñoom parce que ñu ngi déglu moo tax nag je réitère bëgg nañu toog ak autorités yi wax ci mandat d'arrêt bi ñu jàppaleñ ci ñu saisir la compétence internationale ñu saisir les juridictions de ce pays-là pour que Macky Sall dellu si que justice soit faite. merci beaucoup Boubacar Seye ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi. jërëjëf Ndeye Comba c'est moi qui vous remercie. voilà ñuy fàttali ni Boubacar Seye yaa jiite ONG bi di Horizon Sans Frontières jërëjëf.